dajale fii tey mooy def benn point de presse mais dama def tuuti historique fii fii nu taxaw suufu njaxiraat la njaxiraat bii ngeen di gis ci tali bi fii moo nekkoon njaxiraat lii moo nekkoon seeni i tool malheureusement ñu toog ba 2008 benn famille ñëw présenté wu ne seen maam moo ko moomoon ça fait 133 ans bi mu ñëwee fii 2008 loolu la waxoon ñu ñëw ñu defaral leen ay kayit ak euh, délégation spéciale Djibril Samba jiite woon bi mu leen defalee ay kayit ñii mu defal leen 50 hectares ñii mu defal leen 100 hectares ñii mu defal leen 20 hectares ça tourne autour de 952 ñu ne seen maam moo ko moomoon sa maam nag su moomee ñu ne ko nan la moomee mu ne acte administratif acte acte administratif la moomee woon acte administratif 1964 je parle de la loi des domaines nationaux ki dit la loi 64 46 mu wax ne suuf domaine national lépp léegi état moo ko moom la loi de 72 bi nga xam ne moo ñëw moo jël suuf bi jox ko eh, li ñuy wax transfert de compétence transféré ko au pôle territorial communauté rurale yi commune yi mu jël ko dénkaat leen suuf si bi mu leen ko dénkee en 1972 ñii ñu ñëw borom tool yi ñëw fii amoon boobu ay acte administratif danoo dem régulariser ñu defal leen communauté rurale bi comme moom moom suuf mu defal leen ay acte de délibération ñii fi nekk ñëpp borom tool yi am nañu délibération alors lan moo tax ñoom depuis boobu ba léegi ñu topp suuf si jaay nañ ko police jaay ko waa présidence jaay ko seen o pour la pour intimider ces populations là parce que nee ñu bu ñu tuddee présidence tudd police les gens vont reculer no non du dem du dox borom tool yi seen bakken lañ teg ci tool yi ñeneen ñi mooy fii projet waa Njaxiraat sept dix-sept hectares moo fi nekk projet boo xam ne waa Njaxiraat ñoo ko moom parce que waa Njaxiraat aussi ci propriétaire tool yi lañ bokk man mi wax ak yéen sama pap ci ci projet bi la bokkoon man ci projet bi laa bokkoon kon tey suñu ñëwee fii li nuy défendre mooy suñu alal li bëgg rek attirer attention opinion bi mais attirer attention waa présidence attirer attention police pour que mu bañ a am discrimination quand il y problème entre de sénégalais su préfet warul woo wala préfet warul woo benn parti bi bàyyi benn parti bi soo woowee ñële pour ñu fekkee réunion mais propriétaire de champs yi dañu waroon aviser seen président mu ngi nii mu ñëw fekkee waxtaan bi mais il a fallu l' intervention d'un conseiller municipal muy Tafa Diallo pour que ñoom ñu mën a ñëw fekkee mbir mi bi ñu def lever bi dañoo woo benn parti bële bàyyi leen ñi ñoom ñu informer leen ñu soog a ñëw te boo ñëwee nga ne da ngay jël di defar tiitre foncier ñun ñëpp xam nañu titre foncier nan lay amee titre foncier da ngay am délibération dangay am plan cadastral mooy plan géomètre agréé mu defaral la ko nga am fichier numérique boo paree nga déposé ko mais su du du déposé nga rek am nga ñu wutal la niqaat soo amee niqaat nag ah ñu wutal la droit réel soo amee droit réel ñu wutal la euh, décret présidentiel ces gens qui me disent qu'ils ont des titres où est le décret nañ ma woon décret bi man ce qui m'importe c'est le décret c'est pas le droit réel parce que j'ai trouvé ici un droit réel ici à Ndiakhirate de 7 hectares alors que le décret était de 5 hectares man man man naa ko maa ko fekkee laa wax c'est je prends l'exemple de Youssou Diagne et Adama Sow le décret était de cinq hectares alors que le droit réel était de sept hectares c'est entre cinq hectares comme décret et sept hectares comme droit réel qu'est-ce qui réel c'est le décret parce que le décret présidentiel moom mooy wax ne yow lii yaa ko moom suuf pàcc boobu euh, état joxu ko kenn moo ko teel boppam mooy li ñuy wax droit privé le titre privé appartient exclusivement à l'État moom rek moo ci mën a signé moo ci te c'est un décret présidentiel maintenant li nga xam ne nag domaine national la moom la jël nag dénk ko li nga xam ne mooy collectivité territoriale yi te tey le maire il est en phase avec les populations il est en phase avec les populations qui sont là pour que ñu jóge fi ki fi nekkoon non l'administration est une continuité dafa ñëw man en 2009 bi ñu ñëwee ñoom ñu euh, ñu euh, Omar Gueye siwaat nekk euh, président communal en 2009 bi ñuy ñëw fii ànd ak ñoom fii ci àll bi dañ doon ñëw fekk ay bâtiment comme nii bâtiment bi ñu ne la ndax yow sa maam moo ko fi tabaxoon nga ne man xaw ma ci dara fa tool fan la commencé nga ne man daal 50 hectares lan ma jox këyit baa ngi nii xamoo fu mu commencé xamoo fu mu yem mango yi ñoo mag ñoom ñoo leen mag mango yi ñu jëmbat fii nii ngeen gis àll bi yëpp li ngeen fi gis ñoo mag ñooñu ay ñoom Cheikh Faye ak et autres ama yóbbal Ndiaye ama yóbbal Ndoye et Ousmane Ndoye sont en prison en xam nga lu leen yóbbu prison dañu ñëw benn jël benn document falsifié ñu ne document bii kat ñoom dañ ci bëgg ut titre foncier pour iniquement pour gën a am doole mën a léser waa police sax après ak waa présidence parce que xam nga nan lañ ko doon def dañoo ñëw jël cachet maire Tivaouane Peulh mhm. ñu def ko ci ñu bind maire Bambilor Assane Ali qui était le président de la délégation de euh, la délégation euh, spéciale à l'époque ñu ñu ñu def ci turam alors que muy commune u commune u Bambilor et l'assiette se trouvait sur la commune de Sangalkam quelle mais loolu nag wax dëgg yàlla su fekkee ne ñoom ci loolu rek la ñuy basé wu pour préfet wax ne ne ñoom ñoo am dëkk wala sous préfet wax ñoo am dëkk wala cadastre wala urbanisme wala domaine ne ñoo am dëkk ñun ñu jël suñu dëkk muy sunu bakken ak sunu alal ñu joxe ko. oui oui oui oui on ne laissera personne et puis désormais que vraiment dama bëggoon que opinion bi xam ko ñi ñu indi fi naan ay gardien ak yooyu fii kenn dootu fi ñëw ngay garder alalu jàmm booy garder dangay garder sa alal lii sunu alal la benn gardien bu mu fi tegati tànkam bu fi kenn benn nervi ñëwati parce que nag munoo sooy ñëw fii nga naan dangay indi ay nervi looy def nga ne da indi ay nervi kon kay yow li ngay wax moomoo ko te ma jox leen benn mbir euh, Pape Dia doon wax benn xisa mu ne ñaar ñaari nit ñu doon xëccoo benn xale bi nu kenn ki lan la wax Euh, nañ euh, kii buur bi ne leen nañ dagg xale bi ci digg bi kenn ku ñu jël benn parti kenn ki dafa bañ keneen ki nangu mais ki nangu kay ce qui veut dire que moomoo mais kenn du jël sa alal nga di ko xar di ko di ko séddoo amul lu ñuy séddoo fii c'est fini y a pas de parcelle il faut que la police la présidence la CNE soit informée que y pas de portion de terre ici qui qui est attribuable il faut que ça soit clair on ne peut pas donner nos terres y en a pas les gens ont vendu les terres et puis wax su ñu nee dañu wax ne police ak présidence ak seen eau coopérative la waaye les autres postes du coopérative Gandour du coopérative Sagam du coopérative eh bien il peut pas y avoir deux poids deux mesures. non nañu waxante dëgg gis nga affaire bi nañu waxante dëgg bu fekkee ne réew mi la dis ak hydraulique voilà et je su fekkee ne réew mi constitution bi moo ne discrimination dañ koo tere ci réew mi warul am discrimination. est-ce que war na am coopérative bu gën coopérative bi ndax présidence la logé wala coopérative bi moo gën coopérative bi ndax police lañu wala coopérative bi moo gën coopérative bi ndax Sen'Eau la donc nag loolu lañ doon wax ne il faut que ça soit clair les on les nervis là ils ont d'ici demain pour prendre leur cric et leur plaque vraiment qu'ils quittent complètement et définitivement le bi C'est nous qui porté. Moi, il y représenté la commune au niveau du tribunal. si si li may wax ci jugement bi mooy jugement bi boobu juge bi dafa woo ñu defal ko document bi war yépp jox ko préfet jox ko tribunal mu xool document bi fii dafa am autorisation de lotir les services cadastre urbanisme euh, impo étaient informés Et euh, je précise une chose. En 2009, la loi n'était pas que c'est le, le, ministre de l'Urbanisme qui signait les autorisations de l'OTIR. Non, la loi a en 2010. En 2009, c'était sous proposition du président du conseil rural et approuvé par le sous-préfet. Madame, euh, pour nga am autorisation de l'OTIR, da ngay sous euh, président communal day def proposition ne dañoo bëgg a yokk tel dëkk. ñu ne ñu proposé ko sous préfet sous préfet jël dossier bi yónnee ko waa kadas ci autorisation bi am na avis waa am na waa avis waa am na avis waa domaine Samba Sarr mu ngi fii mu ngi dund euh, Dieng mu ngi fii mu ngi dund et tous ces gens là étaient à l'époque chef de service au niveau des de des kadas beneen bi mooy le décret de découpage c'est le décret 427 2011 décret boobu lan la wax nee na kat xàll ju mooy limitu commune Sangalkam dafa bokk maanaam dañu ne Sicap bi ci biir commune Sangalkam la bokk waaye Xàll Jula tamit ci biir commune Sangalkam la bokk waa léegi loolu su demee ba décret présidentiel di wax ci lotissement nga dellu si tey yow nga toog nga ne man kat wax dëgg yàlla de lii décret bi wax ak yépp man compté wul sama maama moomoon fii moo taaloon daay fee moo lakkoon fii vraiment sant baax léegi nag na ku nekk jël ay disposition gis nga àdduna bi réew mii dafa am yoon yoon wax na jox nañu raison duñ ci dellu ginnaaw ñun demaatuñu beneen yoon ñoom nañ dem appel def loolu ñu dem yoon mais ñëwaat fii di fi loolu loolu fi fini que personne laa wax bu mu fi tegaat tànkam ñun ñëpp décidé nañu désormais ñooy sàmmal suñu alal suñu bopp ku fi teg tànk dinañ ko jëfal